salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki xarit ñu bàyyi xel si www.salemactu.com man Siste Kenza ma ñëw rek ak yéen si émission bu bees tàq ñu duppee salum Fës waaw salum Fës da nga di daw bëgg a fësal say produits ak ci lépp loo yëngu rek man Siste Kenza dina ànd ak équipe bu Saloum Actu yëpp ñëw ba sa kër seet si la. ku bëgg participer émission rek mu nga def 77 815 89 48 77 815 89 48 di wax rek daw leen sur abonné page Facebook ou rek chaîne YouTube wala rek ngeen def à très bientôt merci beaucoup.